Euh, weer wu tedd yi nga xam ne tàbbi nañ ci ak xew-xew diine bu am solo bu mag bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal euh, te mooy guddik sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal wooy dawli yàlla yàlla jéggal leen yàlla yàlla yërëm leen ñi nga xam ne ñoo tawat ne ci barab hôpitaux yi wala sax yeneen barab yu bokkut yooyu le yàlla na yàlla fëgg seen bopp mañ mën a dellu seen njaboot ñi nga xam ne ñoo tukki ne ci bitim réew yal na yàlla jàppandalal leen luñ mën a indi te yàlla bu leen kenn indi na ñëw seen sago ñi fi nekk nii it yal na yàlla def ci seen liggéey barke ba ñu mën cee génn ba ñu xam ne mais na cee génn bu baax te doo génn réew mi yooyu ñaan ak yi ñaanu yëpp yàlla xam na ko te mën na ko te barale na ko yàlla nañ ko jóor te bu dikkee yàlla nañ ko jariñoo euh, di sant yàlla Mawlaana tabaaraka taala baax ci may gi ñu may ñu fekkee at te ànd tal ndax fekke yëfi yàlla la kon yàlla mi ñu ko may ñu ngi koy dagaanaat weer wi yàgg dem ak a dikk ci sunu kaw waxtu wu dikk fekk nu ak jàmm buy dem tamit yóbbu ñu suñ ay xasanaat waaye waxtu wu nekk saa su nekk yàlla sàmmal ñu suñ magi réew sàmmal ñu suñ alquran ak suñ aimatul jawaami ñaan yàlla sunu kilifa diina yi yàlla yàgg leen fi tamay leen bàyyi leen seen xel ak seen sago euh, bu lelee soo tey tomb bi ñu bëgg a fàttalante ak yéen rek mu ngi jëm ci ni ma ko junjee léegi muy boroom guddi gi wala boroom guddi yi ak bés yi ak weer yi ñoo xam ngeen ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko bind ngir jëmmi boppam waaye lu dul jëmmi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko bind mu nekk taraanga ñeel yonent bi alayhi salaatu salaam ba ci nun doomu bi lañ sallallahu alayhi euh, moo tax bi yàlla bindee sayduna muhammad alayhi salaatu wa fii ahsani taqwim noonu mu ko xecc alquran jox ko ab màggaay boo xamante ni mësu koo jox ko ko jiitu te bi mu ko ko joxee ba noppi joxaatu ko keneen tey du ko joxati keneen mukk ndax noonu ma njëkkee ci kàddu yu njëkk yi loolu it yëmul rek ci wax ko ci alquran waaye daf ko jëmmal ci mboolem yi ngànk lislaam xam ngeen ne borom bi tabaaraka taala bëgg nu màggal yonent bi ginnaaw bu mu ko màggalee bokk na ca mu saxal jëfiinu màggal ga ci alquraanu karim ñu di ko jàng waxtu wu nekk saa su nekk ba ba àddinay tukki loolu benn la ci ñaareel bi mu wax ci aaya boo xam ne dafa informé jullit ñëpp rawatina ndax doomu aadama yëpp la waaye jullit ñi ñoom noo nangu ci ne yàlla ak i malaayikaam kat ñi ngi julli ak a sëlmal te waxin mooy kon nañu bàyyi waxtu wu nekk ña nga ca ci kan ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan gees nit ñëpp set ci ñi gëm daan na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla kon def leen ni noonu mooy kan moo yàlla ak i malaayikaam maanaam kon ci wax ji rek mooy toppandoo leen ñu ci jëfin ji te mooy ngeen di julli ak sëlmal ci alayhi salaatu wasalaam loolu benn la ci bëgg ñu saxal di màggal yonent bi alayhi salaatu salaam ñaar mu ne képp koo xam ne màggal nga lu yàlla màggal loolu day moo gën ci yow ndax yàlla dafa am ay ay ci lépp ni mu bindee suufi juróom-ñaar asamaani juróom-ñaar li ci diggante asamaan suuf lu ci ne wut na ci ngëneel noonu mu wute ngëneel ci yooyu la wute ngëneel ci bés yi ak guddi yi ak waxtu yi noonu la ko wute tamit ci mbindeef yi noonu la ko wute ci nit ñi génn ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax bi mu ko ci génne nag seppi ko teg ko ca kaw muy boroom màggaay boo xam ne dafa bëgg ñu di ko màggal waxtu wu nekk loolu it bu ñu deesee ci alxuraan dañu gis ne bi yàllay teg baaram yont bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngale na ko xanaa nun yàlla fekkuñu la ngay ko xat dënn ñu ubbi sa dënn yaatal ko ba mu leer nañ ba nga mën a gérer lu bare bare bare doo mer doo xuloo doo xeex doo fayu mer walaw kunta vazan xalisal xal bi lan faddu min xawlika alxuraan tagg na ko ci na ko nekkoo ku jàggaaral nekkoo ku naqare fréquente ku bari njariñ nga ku nooy nga waaye ku naqaree lem nga bari njariñ nga moo tax ci misaal garab gu am am ñam waxtu wu nekk mu bari yoon yu fa jëm loolu benn la ci màggaay bi bañ may ba ci biir yàlla mi ngi xamal jullit ñépp ne nun yàlla ñoo la sippil say bàkkaar li yaxfira laka allahu ma taxaddam min danbika wa ma taaqar jéggal naa la sa bakkaar yu mujj ak yu njëkk toppatuma la dara sa xalimu bàkkaar damm nañ ko maxsuum nga ci loo def yàlla nee na waaw loolu moo tax bi ko yonent bi déggee sallallahu alayhi wa sallam dafa dëkke sant yàlla ci di ko naafilal guddi yi xam ngeen ne naafilal guddi dafa am solo li mën a maye ci ay maqaama wax na ko ba Aïcha radiyallahu anha soxnaam soosu nga xam ne moo joxoñooñ Aysa na ko yéen jullit ñi bu ngeen bëggee xam seen diine jàpp leen seen genn wàllu diine ci njong mu su xeereer si te Aysa la ci jublu woon soxnaa ma ñu teeleen ko ko may lool ci juróom-ñeenti atam waaye ma nga dugge waañ nag ma Madinatul Munawwara loolu xam naa ni entre ci ñiy wax naan euh, mariage précoce dañoo jàngut siira Sayyidina Muhammad teel nañ ko koo may waaye yeex naa dugg waañ nag radiyallahu anha euh, mu ne ko afala akuna abdan shakura xanaa kon li ma yàlla defal lépp duma ma nekk ku koy sant gis nga kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa yëg na ne yàlla màggal na ko mi ngi koy màggalul muy sant yàlla ci loolu beneen bi yàlla ne nun yàlla noo jël suñ lëkkale ko ak sa tur te loolu yaakaar naa sunu caméraman yi ak sunu techniciens yi nga xam ne ñooy jàllale wax ji ci fépp fu mën agsi ci yéen doy nañ ci misaal e, fii ñuy defee wax ji xëy na ab ruq la waaye wër na àdduna kon ñoom ñoo amplifier wax ji ñoo ko yaatal ñoo ko tas ci écran yi écran yi yàlla noonu la def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wa rafa'naa laka zikrak nun yàlla ñoo yëkkati sa tur lëkkale ko ak sun tur demal ci nodd boo nee allahu akbar ñaari yoon loo cee teg boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah foo tuddee yàlla teg ci yonent bi naka noonu boo demee ci liqaam foo tuddee ci yonent bi naka noonu boo demee ci taaya faw nga tudd borom bi faw nga teg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci aljanna bi borom bi tabartan la di taaral aljana dafa jël laa ilaha illa allahu teg ca muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa bokk yi kon yàlla bëgg na lool ku màggal yontu bi sallallahu alayhi wa sallam te nag ñun rek doomu aadama doomu aadama ñun simple koo ci màggal maamam wax ay jalooreem wala màggal baayam wax ay jalooreem wala nga màggal kilifaam wax ay joloreem mu bëgg ca ba àgg ca lool ba wane mbégte ma jaral ko mu yëkkati alalam di la jox waaye au contraire koo ci ŋàññ ñooñu ma tudd mu mere la euh, bañ la ba àgg ci mën na yëkkati ngànnaay jëme la ko kon kay lan moo gën a jaadu di tagg ak a kañ ak a màggal sunu yonent sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo tax ñu am noonu ko mbokk mu waxe woon na yàlla dolli ko leer euh, asayid Cheikh Tidiane si almaktum maktum radiallahu taala anhu daana wax ne euh, ki tax nga xew ba ne xew bay xewal bàyyi ko xel jaadu na wax na dëgg yàlla ko yàlla fay kon gis nga indil naa la laytaayu illa lan moo war a tax ñu màggal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ko yàlla màggalee ginnaaw bi ko yàlla joxee li mu ko jox ginnaaw bi ko yàlla taggee ci taggiin woo xamante ni kenn mësul dégg taggiin woo ko jiitu ci jëmmam te du amaat ba mukk ilaa yawmi diin te moo di wa innaka la ala xuluqin azim dañ ci dégg ne te kon sallallahu wa bii muy dikk àdduna li ñuy tuddee eh, crise bari woon na ba àgg ci lool waaye bi ci gën a garaaw taxul mu ñu nag mooy valeur yi moral yi te loolu mooy diina jikko mooy diina ku la gën jikko moo la gën diina moo tax daan wax ne ñi eh, gën ci arab yi buñ tuubee ci lislaam ñoo gën ndax dafa am ay qualité jikko yu nu yoroon yoo xam ne naka jekk lislaam solo na ko moo tax bi mu dikkee rek li mu njëkk a annoncé daa wax ne innama bu'istu li ma makaarimal axlaaq dama dikk wala yónnewuñ ma ma dikk dara naree lu dul complété si dëgg-dëgg tedd ngay jikko ana luñ ci déggee kon fekkoon na fi jikko yu baax fekkoon na fi jikko yu rafet fekkoon na fi jikko yu valeur waaye desoon na nag mu dikk pour compléter ko kon ci misaal fekkoon na fi ab tabax bu ne ñum boo xamante ni mën nañ ne sax kuule nañ ko waaye diggante raax baag ak peinture baag meuble yaag yëpp sallallaahu alayhi wa sallam moo ko indi bañ mën koo dëkk moo tax ku la gën jikko moo la gën sëriñ bi radiyallaahu anhu daane wax ne eh, ku la yar waaye daawul wax ku la jur kon yar mooy lislaam moo tax lislaam boo ci génnee yar dara desitu fa waaw yi lislaam bu ci ab yar génnee dara desitu ca sëriñ bi radiyallahu anhu daana wax ne kër gi de am na lu fi nekk loolu ku ko yóbbu bàyyi woo fi dara waaye ku ko fi bàyyi yóbbuwut dara bi ñu ko laajee loolu lan la mbàkke mu ne moo di ab yaram kon nag li ma doon laytaay yëpp mooy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jaadu dafa war ci képp koo xam ne mbooloo mi sa ginnaaw ngay wax dama ne ñu lay diglu jaadu na nga àndandoog ñoom màggal guddik seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu ko sëriñ bi bind ci taasimuhu yanxattimu ala sawi taqaddumi nee na màggal guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waroon na ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci ay génération waaye tamit yàlla na jaadu na ñi yore mbooloo ñu ànd ak seeni mbooloo di màggal yonent bi sallallahu alayhi wa ngir toppandoo ak topp ci kàddu yàlla borom bi tabaraka taala jim ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon eh, gàmmu nag baat la boo xam ne baatu wolof la waaye li muy firi mooy aw màggaliin jëmm ci jëmm ju màgg ju yàlla màggal yoo xamante ni noonu ñu ko waxee ku ko def def na la mu war a def def na it lu war ku ko fi bàyyi it bàyyi na lu war a lu ñu war a def bàyyi na it lu mat a def te sëriñ bi wax anhu bokk na ci ay ndénkaanam daane wax ne li mat def ak li ëpp def ak li matul a def daal li mat def mooy jaamu yàlla daf lay jariñ fii ci àdduna jariñ la ëllëg li mët a def mooy fox du fii du la ëllëg li ëpp def mooy mooy yàlla da yàqal fii alag la ëllëg kon nag bu ne nee taasimu yan xattimu ala xaddu taqaddumi ab joxoñ la ci ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaha ko jaadu na war na ci yow rawatina nag ngay ab julit rawatina ab taalibe boo xam ne dangaa tënku ci kenn ci ginnaaw ahlu suufi yi nga xamante ni ñoo nekkoon fii ci Sénégal ci Afrique jant te mu gën ci ràññiku nag a Cheikhul Xadim mi nga xam ne ci école am lañ génn loolu nag dàqoontiwut ak dara beneen école bu mën di doon ndax kenn ku ci nekk keppaar nga jànge ca ngay nettalee waaye ñoom ñëpp ñu ngi tàng ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon euh, gàmmoo ngoog di weer woo xamante ni gis nga ni sëriñ bi sonne ci weer wi ni sëriñ bi sonne ci borom weer wi yàlla fayee na ko ci lënkale mbiram ak mbiram lënkale mbiram ak mbiram mooy lan ñu ngi jóge bëkk démb ci safara tab bi tey ci rabiul awwal gis nga mel ni alxames ajjuma wala mel ni ajjuma ak gaaw loolu nag day wane rek farlu gu mu am ci moom ak takk gu mu am ci moom ak yéene gu mu am ci moom ak taxawaay bu mu am ci moom nga xam ne dangay génn fii dugg fii te alxuraan noonu mu waxe woon ne limu weer yi fukk ak ñaar la di wëreelu ci at mi da yëkkati ñeenti weer yoo xamante ni moo gën a am orma ci biir fukk ak ñaar waaye nag fukk ak ñaar yooyu gis nañ ne weeru gàmm wii wenn jiituwu ko ndax ci ab jullit lépp a baax ci moom waaye damay faral di wax ne li gën ci moom mooy guddi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam laylatul xadra dégg nga ni ko alxuraan waxe laylatul mawlid nabi dégg nga ni ko histoire jàngale shahru ramadan lazi unzila fihi alquran ak yeneen ak yeneen waaye nag demoog yont bi sallallahu alayhi wa moo gën ci jullit ñi ndax ci lañ amee li ñuy dox suñu digg ak sawara te mooy salawaatul xams moom ci lañu amee li nga xamante ni mooy diine islaam ju set waaye buñ doon xool sallallahu wa tamit ci la ko borom bi tabaaraka laa mën a gan noonu ko alxuraan nettalee fa kaana xaaba xaw say ni aw addina kon guddi la goo xamante ni yëmut ak dara yëmut ak dara te du yem ak dara ba mukk ndax boroom guddi gi dafa yëmut ak kenn te mësta yem ak kenn te loolu yàlla moo ko feeñal ci moom boo demee ci mbindum sëriñ bi mi ngi nettali ne kaana yatuulu kullu man maa shaahu fi kulli zaman wa kaana waasiul atan yadhaku bi tabassumi moom sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mu mas a ànd moo leen di sut ku ko séen muy ñëw nga xam ne mi ngi ñëw bu agsee nga xam ne agsi na waaye buy dox nga xam ne mi ngi ñëw loolu yàlla moo ko defal te it tekkiwul ne day njool ba ne sell wala mu gàtt ba ne tuguj comme noonu ko bët sëñ jiwu jàngale waaye daf daan ree ci muuñ daawul xaqataay comme ni ko ñu bari defe te loolu dafa tekki waxam ji ne xayrul umuuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy li ca gën a diggu doomu kon nag euh, diine ji diine yombal la diine diina diine digg doomul la waaye diine ëppal wala diine xëral wala diine la xiinal xarit bul xëral lool bul ëppal lool nañu natt yem ci seydina muhammad mooy nattukaay bi nga xam ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswa xasana ku dox weesu ko wàññil say jéego ëppal nga ku doo àggu ci moom yokkal say jéego yéesal nga kon nattukaay baa ngoog gàmmoo ngoog ki tax ñu gàmmoo ngoog waaye nag dañu leen jox dig daje incha allah rabbi beneen jataay bi buñ ñëwee nag ci leen ñi dugg ak yéen ci eh, sëriñ bi at mi mu njëkk a gàmmoo ak ni mu doon gàmmoo ak irshadaat ak tawjihaat yi nga xam ne jëm na ci guddi gàmmoo rawatina weeru ci ab jullit incha allah rabbi loolu ci jataayu ñaareel bi ci kanam lay am ñoo ngi sant yàlla di sant téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon topp di ñaan yàlla li ci jub ñu ànd noo def ko àddee lislaam yàlla na yàlla delloo ñu njariñ li ak bépp jullit buy seeraan wala ngay diglu di ñaanal tamit sunu caméraman yi ak sunu techniciens yi nga xam ne ñoo jàllale kàddu yi ak image bi ci àdduna bi yëpp ba kenn ku ne cee jariñ mbokk yi fi la nee ak yéen ki loon def waxtaan ak yéen imaam Babacar salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu wa sallam ala rasulihi alkarim sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahabatihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñi seetaan ci àdduna bi ak fu ngeen mën di nekk dellusi si ak yéen ci sunu ñaareelu jataay jëm ci li nga xam ne mooy waxtaan wu jëm ci sallallahu alayhi wa sallam ci gàmm ñuy sant yàlla bu baax ci dellusi si gi te ànd ak tal tey ñaan yàlla maolaana tabaaraka wa taala mu dool ñu jàmm te jàmm jooju waxtu dikkee yàlla yàlla xiir ñu ci nu jaamoo ko yàlla bokk yi jaamu yàlla dana tax jàmm sax ci barab bu man di nekk yàlla nañ ci yàlla xiir di ñaan yi nu ñaanoon ci jataay bi weesu tey ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu yiñ ci doon sàkku noo ngi ñaan yàlla na defal yiñ ci doon muslu ñoo ngi ñaan yàlla nañ ci musal liñ ci doon moslu tamit ñoo ngi ñaan yàlla ko yàlla musal te jëriñoo ko di ñaanal baax a baax aimatul jawaami yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp waxtu nekk seeni irshadaat ak seeni tawjihaat yëg nañ ko gis nañ ko yàlla yàlla fay leen di ndokkeel àdduna bi yëpp ci xew-xew diine lislaam bu am solo bile waaye jaar ci jaarwaay bu màgg bu rafet bi nga xam ne moom la yàlla tegal fa sunu kanam te mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu nekkoon ak yéen ci laytaayu gàmmu jaaroon ak yow ci euh, borom bi tabaaraka bi muy leeral màggaay bi yont bi ni mu ko ko joxe waaye di leeralaale jullit ñi ni mu ànd ak malaayikaam di ko def àndoon tamit ak yow ci sunu dalil ci alquranul karim ni ko yàlla amplifié turam boole ko turam loolu lépp di junj ne ku màgg la ku mat màggal la waaye tamit àndoon ak yéen ci tomb jëmmi gàmmu ni mu waree ab jullit rawatina ñi jiitu woon rawatina képp koo xamante ni borom mbooloo nga. ñu lay diglu ci lislaam ngay wax ci lislaam yooyu yëpp jaaroon na ci ak yéen tey nag insha allahu rabbi ñaareel jitaay bi dañ koy sof rek ci euh, kayfiya bi nga xamante ni noonu lañuy ñuy gàmmoo ndax olof nee na ku wal mburu tudd ab dëkk comme joxañ nañ ni yàlla waxe ak ni mu bëggee dimbali nañu moom ba wax ni mu bëggee te ni mu bëggee mooy ni nga xamante ni moo ñuy jariñ waaye du ñun ni ñu ko bëggee ndax alxuraan nee na ab jullit amatul ak tànn bu yàlla akub yonentam xasee tànn kon li ñu yàlla akub yonentam tànnal ci lañuy yem moo tax bi ñu yëkkati jataay moo xoon ne ab jullit warta ëppal warta yéesal waaw warta ëppal warta yéesal daa war a yem képp rek ci nattu ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag moom radiyallahu taala anhu def na ci ay xasaayid yoo xamante ni xasa li taasim mawlid nabi sallallahu alayhi du ñàkk dañu ñëw boo demee ca raaya wax na ci yu bari boo demee ca mawaahibu naafi wax na ci yu bari soo demee ci jasbul xuluub kasaalika rawatina xasida yu baree baree bare waaye ngir dugg yow nag ci sëriñ bi moom xam ngeen ne gàmmu yàgg na ko def ba àgg ci lool ndax bu ñu delloo ci taarix tuuti rek dañuy fekk ne fanweeri at nekk ak Mamar Anta Sali Mbàkke waajuram moom Cheikhul Khadim sëñ Touba eh, mësul taxawal boppam di wane ci jëmmam dara waaye mësul samp dara di ko taxawal ngir ne wane na lii moo ko amee wala lii moo ko sañ lu waraloon loolu def lu mel ni lii ñuy waxtaane ci juram lépp màggal ak waggar ak ormal juram gis nga sax ci daara Serigne Mame Mor Anta Saly ci la doon jàngale ba ak fasaaxaam ak gaawa dégg lim lay jàngal taxoon na ñu bari doon weesu seen sëñ daar di ñëw ci moom mu leen di tëralal ak li leen ndax loolu ko yàlla defaloon bi mu nekk ak sëñ Maam Mor Anta Sali ci gàttal bi mu wàccee ab liggéey moom sëñ Maam Mor mu yóbbu ko deqali ba mu dikk moom sëriñ mag bi ba ca xew ngeen dégg ko mu xew ca jataay njaal maag yépp ak digganteem ak xaalima jaxate kala ak Lat Joor ci la commencé xam na nag léegi moom la ndax waajurum la na wagga waajurum dem na kon léegi moom la ci la ko yàlla wax ci kàddu gént bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu ko binde mushafahatan yaqasatan laa manaama la nga xam ne du ay nelaw du gént ñu jàkkaarloo mu ne ko rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi darse faqat yaral sa ñi ànd ak yow ci yitte yitte ju bi mooy diini lislaam te bu leen yar ci bind ak jàng rek loolu yaakaar naa yàgg na ci jamono même ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu jàng ak jàngale léeg ñu jàng ba yàgg ñu ne am na méthode bu ñu doon jàng dañ koy changer indi nañ méthode bu bees indi anamu façon jàngaliin bu bees moo tax ñu bari foofu dañuy wax ne sëriñ bi tas daara waaye sëriñ bi mës tas daara ndax sëriñ bi dafa doon yonent bi zahiran baatinan jàng ak jàngale rek moo ko indi woon ci àdduna ci diine islaam ndax moo ko bind diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda ilaahi wa bihi nu jaddidu ko kon mënut a tas daara waaye dafa soppi méthode doxalin tëralin boole jàngal nit ki ak formé ko jàngal nit ki ak ah, former ko ndax bu njëkkoon dañ lay jàngal kese bàyyi la nga dem door a wuti noo mane ab man-man léegi nag moom mu soppi ittey jàngaleem kese boole ko ak jàngal la ak fexe ba nga man dara te xam ngeen ne réew mi ñu nekk ku ci xam dara boole ca man dara lee nga doon dara te dara yu bari ci am réew nag ñoo man tax am réew jum kanam moo tax jàng am solo soo jàngee xam liggéey am da ngay doon dara ñooñ nag am réew mu ko barale développement yomb moo tax sëriñ moom loolu la ku teel a participer ci développement la parce que l'islam dafa nekk lu universel loo xamante ni lépp la làmb yaa xam nga daj ko yaa xam nga ko daj euh, bi mu soppee tërëlin woowu nag kenn ku ci nekk mu koy yar ci la yell ca moom ñi war a jàng kese mu ne ni jàngal ñi mën a boole jàng ak liggéey ñi mën a boole liggéey kese ñi mën a boole jàng wees ñoom mu leen tëralal ñii mu leen tombalal loolu lépp aw doxalin la woon ci anam mu jàngin bi yàlla dogalee nag ci at moomu Maam Mor Anta Sali la muy sasin di 1300 ca déwén sa rek di assasine ci la Serigne Touba radiyallahu taala commencé gàmm kon moom ko ko yàgg def la te loolu da ko bind axyaytu mawlida nabii fi assasin wa xaadali fa waxal munaa fii talsasin nee na commencé naa gàmmu bi sama waajur nelawee rek ca déwén sa te booba bokk yi xam ngeen ne gàmmu yombul dajale ñaar dina ñett kenn ñi mu ko ndax booba nasaraan ba fi nekk te booba nasaraan bi day bañ ku bañ day bañ ku bañ te bëggutoon gis kuy bañ te sëriñ bi ku ne xam na ne moom kuy bañ la te boobu nasaan bëggul kuy bañ mboolem ku ko daan def it da nga ko nëbb waaye moom nee na ci at moom la commencé gàmm kon yàgg na bàgg ci lool teel a wane tamit aw gàmm wi nuñ koy defee teel a joxañ tamit jëme ci xam ne lu waaye di màggal màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën bayit boobu ma jàng léegi nee na dëgg dëggi li mu bëggoon ci gàmmu nag mi ngi ko amee juróom-ñeenti ati njaareem te moo tombeek 1921 boobu nga xam ne ci la njëkk a woote kaay leen sant le ma yàlla kaay leen sant le ma yàlla sëriñ bi xam na ne sant yàlla benn wecc na junni sant yàlla keneen ku dul moom waaye yiw wi nekk ci sant ak ndolan li nekk sant lañu yéene te dañu wax ne koo xam ne dangaa bëgg sooy dox boo geesoo gis ko soo jógee nee ko nan dem loolu rek mooy ànd ak suñu ànd ak sëriñ bi waaye moom wóowuñu pour jëriñooñu wóowuñu pour ñu liggéey mu añ wala nu añ waaye daf ñoo woo fekk ni lim ñuy wooyee noppi na bu pare kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu gis nga ni moom ku teel a la boo demee ci téere bii ma la nu junj léegi euh, xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy baabul huda xam na nit mooy bunt bi jëm ci borom bi tabaraka taala ku ca jaar jàll ku ko teggi du àgg moo tax moo xoon ne ala rasuli baabil wasuuli li nayli suuli ama roay waxaat ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam xamle gi ñu war a xam ni ñu ko war a jàppee ca raaya bi mu wax ne bu leen gam-gamle bu leen nattale doomi Abdullahi ji ak keneen ku dul moom ci nit ñi ñu ne ko lu tax mu ne waaw moom dafa dikk fekk nit ñi di xëccoo baax mu jéggi baax jàll ca gën di mbay mbaax falaa taqisubna abdullahi bil fudala inna al kawaakiba yuxfiha sinimaaru nee na bu ñuy wax guddaayu njàmb njàmbu mooy gattax yooyu am sukkar bu ñu wax ab guddaayam ron dafaa nekkut la tàndarma dafaa nekkut kon mi ngi wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu wax baaxu nit ñi nañ ko génne moom bokku ci waxaat na ci biir ne nit ñëpp dañoo daw sàkku ji ngëneel di ko wut di ko xëccoo di seet fu mu nekk waaye ngëneel moom bàyyi nit ñi daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man fii laay dëkk ku ma soxla ñëwal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraar moo tax ku bëggati lu gën da nga dem ci yonent bi sallallahu alayhi ndax ngëneel ma nga ca moom moo tax yàlla ngëneel jox ko kenn innal fadla bi yadillahi yuti man yasha yàlla nee na ngëneel ci sama loxo laa ko téye joxuma ko kenn waaye ku ma neex laa koy jox te neex na ko mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam li taxit yàlla xam na nit ndax xam nga baatu fadlu ci olof buñ la ko doon leeral pour mu gën leer nga man ko gaaw a dégg alfadlu mooy loo xam ne bu ñëw dara du sotti alfadlu boo lekkee ba ba regg te fadlu ñëw du rees alfadlu boo nelawee te fadlu amul doo yeewu alfadlu ku yéeg te fadlu ñëwut du wàcc alfadlu ku mar bu naanee te fadlu àndu du màndi alfadlu daal mooy li nga xam ne moo daj kapp ay njariñ ñeel doomu aadama moo tax yàlla dénkaane wu ko ndax xam na nit ni mu gaaw a énervé ak ni mu gaaw a defee réglement de compte su ko joxee nit ku mérité ko kooku du añ su ko joxee nit ku mérité wala ñu mérité seenu ndox duñ naan wala sax mu jëlee leen fu ñu faatu benn yàlla xam na nit ah yàlla xam na nit moo tax Euh, alaa yaalamu man xalaxa wa huwa latiful xabir boo demee ci suuratul mulku yàlla nee na alaa yaalamu xanaa xamul man xalaqa ki bind ah kay wa moom yàlla alatif ku am cofeel ci nit ñi la waaye alxabir ku am expérience la ci mu mën di doon yàlla am na ci xam-xam waaw lu mu mën di nekk rek ba ci nit ci jëmmi boppam yàlla moo gën a xam boppam waaw nit ci jëmmi boppam yàlla moo gën a xam boppam ndax man ngay xalam lu waxagul nit yàlla moom xam na ko man nga fas lu waxul nit yàlla xam na ko yàlla moo wax ci alquran ne wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid kon yu baree baree baree bare sëriñ bi nag bi mu ñuy xemmem loo gàmmu daf ñoo wax liñ ciy jële dafa wax ne képp koo xamante ni màggal nga guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa mel nga ni ku fekkee woon xare badar te xeex ànd ak yonent bi te dimbale ko ba gañe mel nga ne ku fekke woon xunay ni te gañe mel nga ne ku fekke woon mboolem xare yonent bi doon xare ñu lay jam ngay jame ba nga daanu wala nga daaneen ab yéefar ànd ak ngay muñ bal yi ak fett yaag yépp kon dañu gis ne kon ndekete tuur deret xare ci lislaam la ko doon maye jàll na wala lam doon maye jàll na kenn mënut koy am waaye yàlla dimbali nañu ba ci daraja ñool màkka mais na ko dabaatal ci ku taxaw taxawaay guddi gàmm fa man yuazim mawlida nabiyana baabil xoda fala yuxaasabu xadda inda alxisaabil mufhimi benn bi mu ne képp ko xam ne màggal nga guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du la xisaab kenn du la réglé fa réglé mu mett bi nga xam ne dafay wedem loo réglé muy wedem loo mooy euh, noonu alxuraan waxee ne al yawma naxtimu ala afwaahihim bés dana ñëw ñu kaste seen gémmiñ yi du wax waaw làmmiñ yi du wax yàlla xam na nit yàlla xam na nit su ko defee su boobaa luy wax yàlla ne loxo yeeg tànk yeeg mboolem cër yi wax loo kenn ku ci nekk ngay tereme la nga doon def tànk bi ne maa doxoon loxo bi ne maa jëloon bët bi ne maa doon xool lenn lu ci nekk jug di wax ba sax dégg nga noonu ko àllaama waxee cër yi jëmm ji taxaw jàkkaarloog boppam daal ne waaw yéen lu ngeen ma taxawoon nii moo ne yéen ba may def nàngam it bëggoon ngeen dundu rek ni ko soxna yenn yi waxee yaram wu liis loolu doo nga laa ci bëggoon de ñu ne ko waaw loolu dëgg la waaye nag ñun yàlla moo nu wax loo te yàlla ko wax loo nga wax antaqana allahu lasi antaqa kulla shay barab boobu nag bokk yi du mat a bàyyi xel la nee na képp ku màggal guddi yéen salaasalaam réglé moomu di weram loo nit nee na doo ca bokk doo ko gis te képp ku màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa borom bi subhaanahu wa màggal googu nga ko màggal moo lay ñoddi ba aljana waaw tansimuhu bi sunnati yaquuduna moo ñu wammat lil jannati ba àjjana te yëmu ci de balaa àjjana bis di yaadul minnati say xéewal ci àdduna day yokku say xéewal day yokku li muxlisin muasim waaye sart bi nag mooy ñeel koo xam ne bi ngay màggal guddi Yonent bi danga nga ko sellal maanaam da ko màggal ci jàng alquran wala ngay dem fu ñuy jàng alquran wala ngay bernde wala nga dem fu ñuy bernde wala nga dem berndewu loolu yomb na wala nga dem toog sax fu ñuy màggale guddi gi bët set ndox mañ taajoon di ca jàng ñu mépp ci lor yi àggul nga naan ca sëñ bi nee na yu nawiru xalba sharaab min dalika al maabil mujaab wal xalbu yuhidoon aab waaw nee na ndox mu ñu taaj ci baasu guddi gàmm fanaane jàng xasiida jàng alquran bernde zikkar tudd yàlla def lu baax bët set nee na ndox moomu dafay dundal xol dafay far bàkkaar dafay dox diggante nit ki ak hisaab tey day tax sa njaboot ñoŋ day tax nga aaru day tax yu bare bare bare kon loolu moo tax wax na ne sëñ bi daana wax ne guddi gàmm ku mas a fekk nga tëdd daf lay kulla na la jógal tey du guddik nelaw waaw du guddik nelaw bañ na sax jaar na ngay dox di wëreelu loolu sababoon ne fii si njaareem cosaan la woon bu njëkkoon miiru kër sëñ Touba bi nga xam ne 313 mètres carrés la eh, guddi gàmm man bi ñuy nekk ay ndaw wër dañ ko ba tàyyee dañ ko daan wër di ko wër sawab si am na mag ñu wax ne lool moo doon sabab si waaw loolu moo doon sabab si di wër di wër ñii ñetti yoon ñi ñeenti yoon 313 mètres carrés ku ko bëgg wër xam nga ne danga def ab diir soo gëmmentoo mën ngaa yeewu bokk kon gàmmoo ngi nii boo demee ci gis bu sëriñ bi xootal na ci njariñ yi nga xam ne nit ki mën na ko watta ci gàmm waaye nag charte mooy nga gàmmoo ni mu la waxee nga gàmmoo ni mu la waxee te bañ a diggee sa ay jikko ci bisub gàmmoo la guddi gàmm sëriñ bi gàmm bu weeru koor daan ñëw ak gàmm ñoo yem loo ko maslaa mu ne xanaa da koy waajale gàmm gi bu gàmmu teeroo loo ko wax mu ne ndigal bu gàmm gi wéy kon loolu li muy tekki mooy bu gàmmu daan ñëw day gën a dolli ak cawarteem gën a dolli ak fogam gën a dolli léppam jëme ko ci màggal bi sallallahu alayhi wa waaye bu gàmmu ñëwee nag lim am yépp da ko ci def xam ngeen ne siiw na lool ci diwaanu Jurbel fii ci kër gu mag ci guddi gàmmu bu ma jot moom moo daan toog di tàngalal boppam ataaya di ko jox ñi jàng jës boog mawaahi boog muqaddimaat ak mimiya ak di ko boole ak barsanji yu bu jàngee fukki bunt ak ñaar fee jàng fukki bunt ak ñaar fee jàng bastin yu jàll muy jël laj ko di leen ko tuur di jël alalam di leen ko jóor di jël lépp lu mu am di leen ko yellale ba àgg ci tàggoo sagoom di diglu xaside bay wax na ndax da am keneen ku ma njëkk sama sang ba di ko wax lii fekk moo ko bind wax nañ ne bi muy dégg antal karimu anal qadimu dahran udimu fii ka sanaay dafa jël lim am lépp dikk di leen ko jóor ay mbubb di leen ko solal ay parfum di leen ko xeeñal ay café ay warga di leen ko jox naan ndax dafa am ku ma njëkk sama sang ba di ko wax lii ndax dafa am ku ma njëkk sama sang ba di ko wax lii fekk moom la kon yéeg yàgg na ci murit bokk yi ku yéegu du daanu waaye nag murit gi moom ñun dañuy yéeg te loolu mooy di yëg ni ko Sëriñ Muntaxa waxe woon ñoo ko ñaanal yàlla mu gudd fan te wér ak mboolem ñu mbokkal keppaar googu yépp boo xasee yéeg ci sëñ Touba ci yëg ko ci xam-xam ak ni mu ko waxee dootoo wàcc bu mukk kon beneen yoon ñoo ngi waxaat ne di dell di waxaat ne nañu jàngi lislaam te gëstu ko ci ay texte waaye nañu jàngi sëriñ bi te gëstu ko ci ay texte ak lim di sant ñëpp di ndokkal ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tey sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ñu ngi ñaanal baax a baax sunu techniciens yi ni ñu leen ko ñaanale woon ak sunu sunu caméraman yi sëñ a jàll soxna Muslimatu Mbeng sunu jarbaat la ak sëñ Modou Mbaye Thiam nga xam ne mi ngi eh, yàgg def lu baax te yàgg ko bëgg wax dëgg yàlla yàgg di jàll tamit kàddu yi ci seen rajo online ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy sant di gërëm baax a baax te ñaan yàlla liggéey bi lu ci am yàlla na ko bokk in uridu il islaah mastataxtu wa maa taf ilaa billahi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu